Petrosen ak en direction générale ñoo profité de occasion journée internationale de la femme ngir jébbal ay dons au centre de santé bu anne sur Mer lu avons ci 4 millions ngir gën prise en charge sanitaire Bo askan wi lu ci nébuliseur bébé lecture direct cap 20 kg, ay matelas d'hospitalisation ak yeneen matériels yu am solo Émilie Diop di représentante jigéenu Petrosen yi ak Mamadou Faye directeur ba di rafetlu bu baax liggéey ba jigéen ñi di amal ci société ba. tey lu tax ñu jël poste euh, santé bi parce que dañu gis ne poste de santé yi souvent amuñu doole et biñ fi ñëwee di xool di def di def euh, xale yi di def benn recensement dem fu bari mais bi ñu ñëwee fii di gis ne que li leen manque dafa bari donc en collaboration ak ñoom ñu ne ñu affaire.

dafa ne comme social ngeen di def te yaangi ngi leen ko jëmele ci santé te lepp luy santé éducation mom daf ko ñor mu ne dama leen di jàppale biñu ñëwé fi ñom ñoñu wax seen besoin biñu waxé seen besoin li leen manqué loolu lañ leen indil tay comme c'était une première en attendant yenen année yi di ñaan yalla nak parce que matériel biñu ñu leen indil quand même matériel de dernier cri pour que ñom tam ñu téye ko japp ko mun ci faj ay njaboot. jigéenu Petrosen ñu am jom lañu dañuy

mënuñu comme li comme yeneen société yëpp di ko defee ñuy jéggi àndi dem faneen am na loo xam ne ñoo ñuy dëkkal noonu ñu bëgg seddool mooy RSE bi feeñ ci biir ànd premièrement bu ñu naan dem faneen Babacar Meng di maire bu Hann Bel-Air di rafetlu bu baax lu nu mel tey profité ci occasion bi di sargal jigéen yëpp boo gisee geste bi ñu def dafa méngoo toujours ak li nga xam ne moi, euh, préoccupation ou population et pas préoccupation ou personnel au centre parce que nous xam une structure de santé nous dafa centre de service public et nous soxla ay permettre que centre en tout cas atteindre donc performance équipement yi gis ne def ko avec le personnel donc euh, en l'occurrence Émilie qui est chargée du personnel donc orienter li nga quels sont les besoins mais besoins yoy dafa wara mengo ak la nga xamné moy li population bi di xaar ci walu équipement service et je pense que si nous avons un bëgg centre de référence nous yooyu équipement fi mayé permettre à ce que ñu atteindre cet objectif là donc nous saluer ce partenariat mais vraiment de féliciter féliciter le directeur général Mamadou Faye toute la direction de Petrosen mais tout le personnel également mais une mention spéciale aux dames yi depuis un an nous qui liggéey vraiment di am ñu permettre à ce que tay ñu initiative femme Petrosen donc c'est vraiment pour vous dire que dans cette société euh, femmes yi am euh, rôle dans la société mais en fait dañuy faral di wax nan journée de la femme journée de la femme mais en réalité journée bobu dañ ko jagleel jigéen ñi nga xamné ne dañuy réclamer seeni droits. Té nak ku am droit am nga devoir et je pense que bo xolé par rapport à acte bi ñu def fay acte bo xamantane wax deug Yalla mengona ak la nga xamné ne droit yoo ñuy laaj la donc femme ci biir société mérite na plus d'attention plus de considération mais man damay faral di wax souvent dañuy arrêté di wax sax parité parce que boo parité da fay melni femme mënul am lu góor mënul alors que je pense que beaucoup de femmes ont fait leur preuve la preuve en est que lii jigéenu Petrosen yi ñoo gàddu projet ñëw def ko donc je pense que da fay lo ne en tout cas dañuy delluwaat gën leen encourager parce que gëm nañ ne que journée de la femme du benn bés rek ci hein donc c'est c'est vraiment plusieurs jours en même temps

réservoir d'eau bi nga la centre de santé bi ñu réservoir d'eau de 2000 litres vraiment tay mom suñu xol dafa euh, accompagnement ça va nous soulager dans soulager population de sur Mer ni ay parce que nous familles la wa ñu yaay ah ñun def centre de santé bi 90 personnel bi ay vraiment jigen dañoo engagé wu ci ci santé parce que xamné ni que ñom ñoy jur ñom ñoy yor xalé yi motax dañu engagé bu baax ci ci santé muy personnel bi comme muy bàjjanu goxi voilà vraiment muy profiter ci journée de la femme di delo njukkal femme centre santé bi ak euh, bàjjanu goxi yi waaw d'une manière générale aussi jigen yëpp ñu ngi leen di sargal dal voilà di leen euh, souhaiter une bonne fête des femmes ay matériel yu am solo te mucc ayib la jigéenu Petrosen yi ànd ci ak ndimbalu seen direction générale jox centre de santé bu sur Mer mu nekk lu ñuy rafetlu ndax lu am solo la ci centre bi ak askan wi tey ñaan lu a